maa ngi laa fay matu maa ngi nuyu waa Ahlul Lamb yëpp di nuyu waa teen yëpp di nuyu waa zone bi mu nekk yëpp di wax ba baada auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi la hawla wala quwwata illa billah maa ngi kontaan nag la rafet lu ñëw bi nga fi ñëw waaw waa làmba ji moom li ma ci dimbali mooy depuis ba ma daanoo ba léegi yaakaar naa maa ngi doon entraîné quoi mu depuis ba mu daanoo ba léegi maa woon di entraîné chaque jour chaque jour waaw def na ko ci man xam naa ci li bëri na comme lépp bëri na <laughs> noo gëstu def. ma dara nag. Ah, def ma dara parce que def naa sept sorties yu tegaloo yëpp ma def ko ay victoire su ma daanoo benn pour ñoom pour man ñoom war nañ ma ko mën a pardone quoi mais maa leen di woo si ñu ñëw ñu wuy si si dëkk bi si esprit sportif quoi dafa des si ñun trop. no de xeeb man no man mënti tol no lay no lay ñëwee moom ah noo mënti waaw lo la bëggoon nag teel la libéré quoi xeex la entraîné woon mais après dama na ci xeex du ko jeexal quoi bëre moo koy jeexal te gis nga ci la ci ci lii la jeex quoi ci bëre la jeex hmm. waran ko mbeur la ko mbeur yeb rek parce que lamb dimanche bo tok bëre woko rek yaay ngi perdre quoi. kereeru góor yàggul ah loolu tamit ñu ngi ciy sant yàlla bu baax mais combat bu ko bëggee benn man bëgg naa ko fukk waaw parce que moom kom que da nga ne mbëru ginnaaw raay la man mbëru dëkk bi laa mbëgu mbëru tund wi laa loolu moom bañ naa ko ba sonn mais mënuma ci dara toujours toujours on ensemble <laughs> ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo baax rek ñoom ñoo baax mais man moom dof laa moom bu ma toppoon sama jukko moom kenn du ci àndax man moom day day diire quoi man xaw ma ko sax nag. Ah. Mm-hmm. ah waaye damay génne fii ci àll bi dem àndaax sama benn boy Moussa dañuy bëre ba trois heures du matin yàlla di ñu si ñu koy jël kon bu ay boy waranke boo génnee fii nii ay bëre moo fi am day àgg di bëree xam ne mosoo kaa gis kon nag. da ngay ëpp sax ba taxaw final wala nga bëre ba taxaw quart de final demi final. non man mbër ñoro ma de man booy bàyyi naa làmb bu yàgg bi na beneen booy jog xool ma dem toog ne la seetaan ci ah. tirbin daa neex tirbin booy ndaw ñoo lay saaga doo ci seen tisat la ñuy defar dagg seen yiite yëpp te dafa cher waaw xam nga loolu temps dafa cher ba nga déparé ba léegi sa temps bépp teer bi moo ko jël waaw waaw. la ñu sant yàlla bu ah, ah, pare nañ bu yàgg comme yi ñuy waaj yeneen combat yi rek ah boo waranka dawal suñu yaram hmm. waaw ñun bëri nañ ko gën a diis waaw moom du <laughs> moom loolu dara loolu dara nag loolu mis na ko loolu du wax kii di ka ñaanal nag ginnaaw yàlla bu bu demee ba tax ngeen moom si si loo xam la jógee quoi mu nekk ñu nekk mu nekk suñu gannaaw bu baax ñu jaar ci ay tàngam bu ñu demee ba ñëpp bëgguñu si làmb rek moom moo tax di ko ñaanal yàlla si journée bu mu jëm yàlla defal ko si ndam comme li mu wax nii daaw dafa métti de man sama première sortie dama ko ñàkk. mais kéro bama ko ñaké dal la xamni ni na torop nga jugé fé ba estar ak fi da sori bo daano si woon bo ñëw lu ne ngay dig lu ne té da ngay rayante yàlla xam na da ngay jug man bama ma la anam sa bama na la ànd ak jaas mais quatre du matin laa laa jug dem and dama la laaj dama ko xam ak lii li lamb na ko mais xam nga rek mooy lool lu la si dugal sa do ko xam di ñaanal sa di wax ñaanal sa way yalla defal ko jamm ci lamb juñ jëm mais ka si ndam ah ñun pare nañ ñoom biak. nañ bu yàgg. waaye fay nañ le moro ñooy si jaamu kay waaw le treize suñu lu le treize hmm, suñu le treize la ñun instant ni pare nañ bu yàgg jappul daan rek àgg jappul daan ñibbi sawaat amul leneen. boy waranga ñun ñoy ñoy ay ginaaw raay yoy nga ñoo leen gëna a fuuf foofu ñoom luñ lu ñu dëxëñ benn ñu ngi si 40 toog ak moom ñun lépp lañ xam toog ak moom xam nga xam nga xam nga wax moo baaxul quoi ñoom dañ naan ay booy ginnaaw raay lañ wala benn ñun ñoo leen gën a métti fuuf barki sëriñ billaahi gën booy war a nga su jàkkaarloo gaaroo gaar du sigi xool ko xam ga mën nañ la dëpp dëpp micro yi ngay wax lu la saf mais su jàkkaarloo gaaroo gaar bët ak bët du sigi xool ko ñun ñun ñun ñun Mado ñun ko xamul rek mooy nekk si télé yi naan ay gaaro su ma ko jàppee nii su ma ko jàppee nii ñun daal li ñuy ñaan yàlla mooy nit ñi supporters yi gën a joxaat mbër mi confiance ñëpp ñëw ñu mobiliser topp waaw ñu dañuy ñëw en masse loolu loolu pare na bu yàgg waaw loolu pare nañ si bu yàgg ay en masse man maay président fan sa bu gaaroo gaar su ma nalee loolu pare na pare na bu yàgg waaw Mado ñun daal li ñuy wax supporters yi mooy nañ gën a mobiliser ñu tamit di woo suñu autorités yi di woo suñu maire ñu di ko masaw nag si si si si si soog bi mu jógee nii monsieur le maire ñu ngi koy masaw bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yëkkati ko fëggal loxo bi ba lépp dañ xam nga ñun supporters yi waa Diène waa Diène yëpp ñu ngi si ginnaawam ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla fëgg ga mu jóg xam nga ñu ngi koy wax nag combat bi suñu combat la monsieur le maire ñun say booy lañu ñun combat bi suñu combat la ñun gaaroo gaar am fu ñu bëgg mu teg fa tànkam ay boy waranka dañuy wax naan dañ leen di jëndal ay 10 bolok kon monsieur le maire ñu ngi lay ñaan yàlla si combat bi ñun dañ la koy ñaan combat bi dañuy tàllal suñuy loxo di la ñaan nga jëndal ñu béy parce que ñun dañuy sonn si kul lamb ji dañuy sonn trop trop dañuy def sacrifice yu nekk te fi ñuy jóge dafa sori oto boo laal mën na la 40 000 instant ni ay 30 000 40 000 50 000 lañ lay fayee xam nga boo si bëggee jël ay ñun fii nii dañuy jël 15 car boo si bëggee jël 15 car loolu day metti loolu day laal ay 400 000 wala mu laal 500 000 loolu tax monsieur le maire Papa Ndiaye Assane Bey autorité yi ñu kenn képp ku nekk si commune bi rek promoteur yi bàyyiwuñu kenn muy ñu ndaw ñi muy ñu mag ñi yëpp ñu ngi leen woo si combat bi ñun xam xam ngeen ma ma sama jaar gi xam ngeen ma ma naa ngi yéen ñooy ànd fu ngeen wootee fu monsieur le maire wootee ñu ngi si ginnaaw lu mu laaj dañ koy joxe kon monsieur le maire dañ koy wax mu jàppale ñu si combat wa wax ay nitam tamit ñu jàppale ñu jëndal ñu béy su lay kër si mbir yi tamit ku baax la day jàpp si affaire yi bu baax a baax a baax sa combat dina jënd benn bloc combat bu gaaroo gaar mos a bëree dina jënd benn borog ñu ngi koy woo tamit mu gën ci jàpp man tamit may waxaat ci côté supporter yi ku mel ni Assane Ndiaye mu wax booy ñu mobiliser xam nga comme simba si gars yi di def ñëpp ñëw jàpp si booy dañuy def simba incha allah xam nga balaa open press bi incha allah booy dañuy def benn simb xam nga ñu siy woo di woo nag waa académie académie académie bi ñu ngi leen woo bu baax a baax a baax fa la gaaroo gaar soxe ko si lépp foofu la jógee académie waaw foofu la jógee di woo waa lébu gi Santhiaba ñu ngi leen woo si combat bi di woo waa Layène woo bàyyiwuñu kenn combat bi amuñu si xaar ma yàlla kenn dañu bëgg ñëpp ñëw di woo tund jandeer Bambilor Sangalkam Kër Ndiaye Lo Gorom 2 Gorom 1 ba Kañak waaye mbaam déen déeni noor ñoo ñooy woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp si combat bi ñoo ngi leen di woo président fan si club mu ngi woo ñëpp da bëgg na jël 15 car waaw ak président ASC yi Oman ñu ngi koy woo Père Ndiaat ñu ngi koy xool euh, Seydou Lo président Deni Nord ñu ngi koy woo moom tamit tey rek nee na ma dinaa jënd quatre blocs ñu ngi koy waaw ñu ngi koy sant si loolu moom tamit di nga ñaanal yàlla départemental yi mu nekk ñu ngi koy ñaanal départemental yi mu nekk nii nii nii yàlla ko si yàlla may ndam li mu bëgg mu jël départemental yi parce que mooy suñu sac moo fi jóge fi di représenté waa côté bii fuy ba Tëngéej waaw di woowaat ñëpp nag ma doon kontaan nañ si yow kontaan nañ yow kontaan yow yàlla affaire yi ba mu doon ay télé télé kontan nañ ci yow li yombul quoi mbeur mi am combat nga déplacer jogé fi ba town ak yoon bi nu mel waaw waaw soxlo way la mais ñu lay ñaanal bu baax a waaw ñu lay fay yow soxna ji ñoy si jaam bu yoro wer gay ay sa sànq pare nañ bu yag xaar bes bi rek ginaaw ra ñoo gëna pere fouf fuuf ñoo ko gën taxaw fouf billahi walaay talaay ñu bes bi ñu pare eh ñun bés bu ñu demee star la ma la wax nii ah. yaa wax ak ginnaaw raay nga xam ne lëbu yi ñëw ñu leen gën a pare fuuf moo ñu couleur mu ngi nii gis nga stade bi ah. vert blanc ngay gis lépp ñoo moom stade bi bu yeexee du ah. barki alxuraanu karim booy war a nga yàq seen mbokk ba leen yeexee kenn du dugg bi dan ngaa feesal ba mu fees del ñu leen gën a undu fuuf wa buñ jigé ci lolu ñoy wo le 13 ñu ngi siy woo mafia 313 bi yépp wa boy ni ñi wo ñepp ci combat bi wa ñu buñ jigé fukki pénc ak ñaar mo no toppa ñu lay lebulen buñ jigé mafia bu gërëm deux bi dañaa jog gërëm un jog bambiloor jox mbey waye mbam kër ci mbiri déeni géej déeni nor ñëppay jog ñun ban jigee fii nii ban jigee ñëpp a la jog pour gunge ñu dem esat barki alcorane karim li yombul quoi di gën a ñaax autorité yi quoi ñu gën a jàpp ci bés bi billaay surtout loolu maa ngi maa ngi maa ngi lancé un message quoi pour autorités yi nekk fii nii ak suñu chef de village mu may ñu dóor benn sima boo xamante ni si dañ koy mën a def si si biir dëkk bi pour mu may ñu ko quoi fii amul benn violence suma benn trois jours lañ koy du am ci coow du am dara chef de village Ibrahima Ndiaye Diop maam maam maa ngi laa maa ngi laa nuyu di la gërëm maa waa dëkk bi nag ñoo ma yónni saw waa dëkk bi ñoo dañ bëgg organiser ab sumba nga may ñu ko nag trois jours donc du am benn violence benn coow amul benn ku nar a coow ñu ñoo koy gérer loolu coow du si am du si am waaw waa dëkk bi jeune bu nekk ñu ngi koy laaj cinq mille si combat bi bu si nekk ñu ngi koy laaj cinq mille francs bu si mënee jàpp ñu jàpp ko si bés bi soxlaa nañ ko lool combat bii nii dañ dañ def deux deux sorties ñak ko combat yi war nu kaa ñàkk booy wane ko ñoo la gën a bëgg fuuf laal pere ñu pere nañ ko ba yàgg a taaw di gaar barki alxuraanu karim nag di gëna ñaar ñaaxaat zone terre bi ñëw gën sé japp waaw kaar yaa ngi fi ak lepp na ñëw ñu gungé sa way dem moy lolu waaw ma ci wo may wo tundu jënder di ci wo wa gap gap gap gap gap gap. Deni gépp deeni biram ndaw gépp deeni nor gépp kër ci mbiri waye mbam mbey Déni Géej si di Déni Géej Nord Kañak ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi di ci woo surtout waa Tundu Jandeer nañ ñëw génne gërëm deux gërëm un bambilor na ñëpp génne ñëw ñu dem combat bi moom ah lay solo fi laay defee lépp deew ma fenn maa ngi fii open press dina am regroupement dina am dinaa togge añ ñëw leen añ te jàpp nañu open press le neuf la incha allah le neuf boobu moom invité naa la da <laughs> nga teew waaw bay maa ngi koy wax nag na ma yàlla may ndam sa kaw am nga combat de te di nga koos de danga pere pour koos non bii dina koos non bëgguma si lool dina koos moom hmm. Hmm. <laughs> lala booy wax mais en tout daal maa ngi ciy woo ñëpp maa ngi ciy woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp làmba ji waaw monsieur le maire nag yàlla yàlla pëgg sa boppa seddal yaram mi mu continuer say activité ñi dar ñi nekk si commune bi fii ñëpp ku si nekk mën ngaa jëndal gaaroo gaar ñaari tigi ñaari boole yu bee ku ko mënul man bu ma kenn may xaalis jëndal leen booy bee yi ñu dem man booy ñoo tax may béré bu woon tey bu booy bàyyi woon tey man damay bàyyi waaw di gërëm nag sama ñaari gaynde yi bu baax nekkuñu fi di gërëm académie bi ma sooxe koo lépp waaw ñoom la quoi di ñaanal kenn si ñoom na yàlla fëgg boppam bu mu toog ñëw bés moom dara la ci quoi. frère moo rita ne lay kaa waxe rétabilis lan boo rétablissement frère wéral sama ginnaaw quoi bés bi da nga ci am solo waaw <laughs> jëlee waaw maa ngi dégg booy warang ñu ne ay booy ginnaaw daal ñu ay booy déen lan fii lan dëkk si taaru dex gi fii nii nii kenn yabunu ginnaaw ñun kanu yab daanu fekk noo nelaw barke alxuraane karim garo gaar mi nii nii barke seydina ho doon yàgg bégal or na alxuraane karim alla walaa dem le bëri ma pat bëri dóor laa en nag fii leen nekk kan Ndakaaru Njaay gi le bëri la mu ngi noonu la jaay booy taawan gis naa la noonu ab champion la ñu yor maanaam solo gaay maanaam mooy liggéey ngir sa dëkkuwaay ngir am doole ngir say non ginnal naa am mbalam yi ni nii mooy loolu noonu. <laughs> ah booy waral nga dañ koy wax combat bi ñoo gën a bëgg fuuf illaahi walaay da xam na ñun mbër lañ yor caaxaanuñu si làmb ji ko wax dañu kaa bëgg a ñëw jël feere ko zone Z de Bambilor ak déeni biram ndaw di nga wax ne waa làmb ji dandaa sémmiñ la neex benn naxari benn musul dégg muñal arène nationale nun noo ko fay déggaloo muñal bari gi yàlla le treize suñu treize la day dégg muñal ñun ñoo moom le treize bari alxuraan waaw day daanu de nun lay waxal ñun doomi kii ah dafa dof ah kii dafa laajtewul gaaroo gaar avant moo dugg si moom gaar ba gaar kenn da saña ko ci yoon fu gaaram du fa taxaw dafa am nu mu demee nag moo tax ñu jël la mais yow bu la gaar jàppee non yey yey yey yey mais benn rek benn rek gaan maa ngi dégg ñu naan ñuy booy booy ginnaaw raay de nee naa gaar ba gaar gaar ba gaar saxaara kay daw mbaa ndaw la soor da bar nga gaaroo gaar mi waa dende ka te dee ka yàkkam de barke alxuraane karim